mu mel ne dëgg dëggi soññee bi mooy nun murit yi ñoo war a seetaat suñu bopp ndax olof dafa wax ne bukki ba dabee waxambaane ca doxin wala te ku fattul say nopp gëmmoo say bët yaa ngi teg sa bët ci ñuy ñuy ñuy def ci sëriñ bi lu ñu war def yaa ngi dégg sa nopp ñuy def ci ñuy wax ci sëriñ bi lu ñu war ta wax te loolu su amee ci nun la fi ñu war a ne buñ fa nekkee kenn du ko ñemee daa am loo xam ne duñ ci déglu kenn duñ ci xaar kenn sëriñ bi nañ ko teg fa ko war a moom teg ndax daa wax ne Cheikh Rafal li mu rawee ñëpp du liggéey bu bari waaye fa ma yàlla teg fa ma yàlla teg la ma Cheikh Rafal teg. wax na ne Ibra Fall egg na ci bu doxan ba fekk may jëfe yàlla tere day jàpp ne yàlla mi ko tere woon moo juum waaye man Ahmadu du ma def du ma def lu dul noona am murit foofu lay ne. lépp lu ne ci sunu xol yi tey jii. lu mu mën a doon. bu nu bëgg ndey bu nu bëgg bàyyi bu nu bëgg soxna bu nu bëgg alal bu nu bëgg wér bu nu bëgg gudd fan nan bëgg sëñ Tuubaa te wéetal sëriñ Tuubaa te dox jëm ci moom te sëriñ bi gënal sunu lii ñu maanaam ñu tekkiwul dara di këll-këlee sëriñ bi bépp murit boo xam ne man ngaa toog ne diw nee na ci sëriñ bi nangam ak nangam baa nga déglu ko ba mu yegg la ngay wax sa digg sëñ Tuubaa du dëgg ab murit war te attan benn kàddu bu dul noonu jëm ci sëñ Tuubaa ab noppam war ko attan mane sëriñ bi mooy sunu lépp te suñu rayee ci moom day moom day ba muy wax ca Musaylama lam ko wax sëñ Mbàkke Buso ba mu yemee ci béy di daa taf kaalaam ne ko lii bu ma ko bu ma ko bu ma ci teguloon sama bët ku ma ko wax du ma gëm na yaa ko wax mu ne ko Mbàkke bu ne ko sëriñ Mbàkke bu ne ko Mbàkke mu ne sama sama sang ba képp ko ko bañ doo xam sama teggin xalima sunu bu yar sunuy teggin sunu bëgg jàmm ku bañ Serigne Touba ca di ko noonu wara koo xam waaye tendeefal gi ëpp na ca fi ñu war a teg sëñ bi lañ ko tegut buñ ñu tegoon sëñ bi fi ko war a teg kenn ci àdduna du ñemee këlëkële sëriñ bi ndax sëriñ bi fa mu tegoon yonent bi teg fa boromam defal na ci moom xëy ba koo xam ne ku jàkkaarloog sëriñ bi da nga xalaat leneen. lu dul daay di lislaam waaye nag su fekkee ne nii lañ mel rek lu ne man naa xew sëriñ bi de mooy sëriñ bi dama wax ne alayhi salaatu wa salaam mooy gën gi mbindéef waaye Cheikh Ahmadou moom mooy man gi mbindéef mboolem ñi yàlla bind sëñ Tuubaa ci man mboolem ñi yàlla bind sëñ Tuubaa ci raw kooku la nu yàlla wërsëgale nan xam li am mooy lan sëriñ bi képp koo xam ne mbiram yaa ngi koy takk ci am xel booy boo ko dem tëri doo ko mën a xam ndax suñu borom subhaanahu wa taala bi mu bindee doomu aadama dafa def ci moom benn appareil boo xam ne lu mu war a xam def na ko ca muy am xel maanaam xelu doomu aadama suñu borom dajee def mboolem xeeti xam-xam yi looloo waral nit ki su góorloo xam-xam bu mu yee ci boppam rek mu yeewu ndax fekk na denc nañ ko ca waaye bu bu ca yeewul benn day mel ni ko xamul dara waaye lépp daje na ci bopp yi. xam ngeen ne alxuraan ni mu toll su fi jiituwul woon kenn mënu ko mokkal ci juróom ci ak juróom-ñaar fukkaat waaye daa fekkoon mu ngi ci biir waaye buñ ko yeewee rek mu yeewu wa allama aadama asmaa kullaha lépp ngi ci suñu biir waaye loolu nag suñ borom bam bam ko defee ba noppi ci am xel la ko def lépp lu xel mën a mën a xalaat rek mi ngi ci biir loolu sëriñ bi nag daa bokkul ci yooye ndax sëriñ bi day mbermam suñ borom sëriñ bi ba ko suñ borom bopp ja sàkkee jëmmi boppam rek a taxoon mu sàkk ko. xam nga la ko ci boole bëgg gi bëgg yonent bi moom yàlla waaye sëriñ bi boromam képp a taxoon mu sàpp mu sàkk ko waaye bëgg yonent bi moo tax mu tegtal ko yonent bi nga xam ne sëriñ bi suñ borom moo ko tegtal yonent daleen yàllaahu ala muhammadin kon sëriñ bi fa suñ borom la jógee ñëw di liggéey si yonent bi salaa salaam ba mu ca noppee dañ ko delluwaat fa suñu borom kooku nag la ne ci moom kawe na am xel mos nay waxtaan. ci ab jataay ba am lu mu wax am ci mag ñi ko ne loolu de sew na lool te xóot sëñ bi ne cell ne xanaa ma sàmba newul ci jataay bi ñu daal di wooyu sëñ ma sàmba ba mu egsi sëñ ma sàmba xamagul li sëñ bi wax ak delluwaat ca la mu waxoon ko soog dégg sëñ ma sàmba tudd yàlla ne ko loolu kawe na am xel mu ne loolu sëriñ bi daa am yu ko suñu borom jox yoo xam ne daa kawe xel yi lii xutta faay xel maqis la sëriñ bi wax sëriñ bi yi dajee ci loxoom newul ci xel yi ku koy atte ci am xel da nga juum kon ku amul tawféex xamal ne amoo tawféex waaye ñun ñu am tawféex bu nu kenn këlkële lu ñu yor sëriñ bi la yàlla xool ci lépp lu waay mën a defal yàlla loolu lu mu mën a doon boo bala ko yàlla bala ko yàlla nangu day xool noo def ak Ahmadou soo nangulee Ahmadou suñ borom nangul la soo gàntee ak sa Ahmadou suñ borom delloo la ko. mboolem xeeti ibaadaat yi laa wax loo ci def ba noppi suñ borom day xool noo def ak sëriñ bi ci sa xol boo nangulee sëñ Tuubaa ñu nangul la boo gàntoo sëñ Tuubaa ñu delloo la ko suñ borom soxlawul loola tawaafu kulla man alayhi ankara indal ilaahi wa nabi lam yushkira la wax te wax boobu mën ko koo delloo ci mboolem xeeti jaamu yàlla yi ko koy wër ba dajal leen boo ca noppee ca te inkar ci sëñ Tuubaa dara lu mu tuuti tuuti suñ borom ak yonent bi xoolatuñ ko kon nañu xam li ñu am mooy lan te damaa jàpp ne fi ñu war a toll ñun yoonu murit mooy di leen fekk fa ñu nekk di leen jàngal sëñ Tuubaa waaye di tendeefal ak a nelaw ko biddanti bañ fekk si ñu bëgg ñoo dëpp ci sëñ loolu gàcce la ci ñun. te kat lii dana faju ñun buñ ko fajee mu faju buñ ko fajul sëriñ bi ñëw fajal ko boppam toog ba sëriñ bi da ko faj nag gàcce la ci ñun ndax sëriñ bi fu mu war fete fete nañu fa daa am loo xam ne noo ko mbéjum kanam borom a koy fajal boppam li xew mooy kenn ku ci ne la dul dëgg ci sa xol mooy wax ak yow la dul dëgg sa xol mooy sëriñ bi des koy bëgg Cheikh Rafal bi mu liggéeyee sëriñ bi ba sëriñ bi di ko gërëm moo mbokkam yooyee kenn ku ne sëriñ bi ne sa borom nee na nga wax li nga bëgg ma defal la ko ba mu yegg si yegg ci Ibra Faal def ko ne sa borom nee na loo bëgg nga wax ko ma defal la ko def ko ne neel sa borom di la gën a bëgg Cheikh Rafal li mu tànn mooy di gën a bëgg Sëñ Tuubaa ñow na siyaare sëñ Tuubaa ci njaareem moo ne ko Ibrahima sa dikku tey sa defal nañ ci boo fi jógee loo gisati yaa ko moom daa téye ci ñaari loxo sëñ Tuubaa ne ko wëlbatu na sama bët yi ba dootu gis lu dul yow man bëgguma am lu dul yow am murit day bëgg sëñ Tuubaa day gëm sëñ Tuubaa day wolu sëñ Tuubaa ca loolu mu ne su ko jëlee ci dara loolu xasida yi gis nga tey jii mi noonu bàyyi xel jub ne fi jubate fi jubate fi li ko waral mooy sëriñ bi daa bëgg nu bëgg ko ndax suñ jariñ ñëpp a ngi ci bëgg sëñ tubaa ci xasida yi day tax a bëgg sëñ tubaa mi noonu bàyyi xel soo koy jàng da gën a bëgg sëñ tubaa te bëgg sëñ tubaa day tax a xereñ ku la bëgg sëñ tubaa moo la gën a xereñ borom métier yi xam nañ ko jàngkati alxuraan yi xam nañ ko gëstukati xam-xam ku la bëgg sëñ tubaa moo la gën a xariñ bëgg sëñ tubaa day tax a xariñ te bëgg sëñ tubaa ci xasida yi lañ koy jëlee xasida yi nawetu nawetu taalifan yu kayisul balit la wax al balit mooy am kanas koo xam ne dara mënut dugg ci bopp bi sëriñ bi nee na sama xasida yi da koy yeew ba mu gën a yeewu ñu gën a yeewu kon nan bëgg xasida yi nan gëm xasida yi nan topp xasida yi ci di ko jàng ca bàyyi tendeefal bi nañ bàyyi tendeefal bi nañ jàng xasida yi nañ jàng xasida yi ca kat jànguñu xasida coow lee bari rek waaye xasida yi suñ ko jàngee xam ne ñu ngi koy jàng nan jàng xasida yi te xasida yi ko ko jàng dootoo wax ak ñii ñee ngay waxal sëriñ Muntaxa nee na fi war a teg sëñ buñ ko fi tegoon waxuma la ñii waaye malaayika yi ñooy doon suñuy suñuy nawle waxaat ne fii ne la jaadu woon mooy murit bi ne da war a dem jàngi xam-xam ba ar dellu si di liggéeyal sëñ Tuubaa ci xasida yi kon xasida yi fa mu nekk nan ko fa fekk dëgg la nag noo ngi ciy jariñu waaye njariñ ñi daa mel ne ku ñu jox suuf soo xam ne boo gasee am am urus boo gënee gas am pétrole boo gënee gas am jama nga barke tamaate di bay tamaate kaani yi nga am xaalis de waaye as xaalis ngay am waaye cey boo gasoon cey boo gasoon nanu gas jot ci jamaa bi jamaa baa ngi fi ca lépp ngi ci xaside yi kon nan gën a fonk xaside yi bokk na ci turi sëñ Tuubaa buy dal muy dal waaw bokk na ci turam buy dal rek muy dal foofu la sëriñ bi toll sëriñ bi moom la sëñ Cheikh Fall euh, Mbawar sëñ Aliou Fall Mbawar mos na am lu muy waxtaanee ci këram am ko ne ah lool de mun ma loolu kenn ne ko mu ne ko xanaa yow yaa ko mënut ndax am murit lépp lu mu jàpp ne sëñ Tuubaa mënul ko bu ko doon defal àdduna ak li ci biir mu moom du ko defal waaye lu mu jàpp ne sëriñ bi mën na ko sëñ bi mën na lu raw loolu kon sëriñ bi tëlewul dara ci moom te daa wax ne man Ahmadou de fi ma jaar sunu fi ma jaar sunu borom képp ku ko wax. te kala ko wax xam ko su noppee bu ne bëgg nga yàlla di nga ma bëgg. li ma defal yonent bi sallallahu alayhi wasallam képp kuñ ko wax te nga ne bëgg nga yonent bi ka ko wax xam ma su noppee di nga ma bëgg. ku ne fonk nga lislaam bu ñu la waxee li ma lislaam jaral bu dee li nga wax dëgg la da nga ma bëgg kon ku bañ sëñ tubaa bëggoo lislaam bëggoo yonent bi bëggoo yàlla te ku weddi sëñ tubaa yéefan nga te bu leen dara jaaxal di woy baayam daana defal sëñ tubaa dara loolu du ci dara araaba kulla man loo shaqawa maanaam loolu la sëñ bi wax ku nar a texee di bu juddoo woon ci kër sëñ Tuubaa du fi yaroo arabatil fujaara turan li si waa wasaaral abraar xëbandil xawaa fu na leen di jóge di jébbalu si kon du ñàkk ñoo xam ne dañoo war a texee di jóge fii dem feneen nañ leen bàyyi ñu dem texee nar a texee di rek waaye nag nan ko booleeg muut baa mot day am loo xam ne sëriñ bi du ko digle mukk waaye murit a ko war a xam def ko sëñ Tuubaa nanu gënal suñu bakkan yii te fi ñu war a teg sëñ bi buñ ko fi tegee di doxee nañu war a doxee kenn du sëqat mag ñi nee nañ fi bu jógee fi kenn mu sa sëqat sëñ bi maanaam des koy fajal sëñ sëñ sëñ Fall dafa wax ne murit day jàng xasida di naan café ku wax ci sëñ bi lu mu war a wax mu duma am murit foofu la war a ne